Assane Ba ñu ngi lay nuyu. ñooy lay fay. waaw di fàttali yow yaay euh, membre ci comité directeur parti démocratique sénégalais. waaw dañuy euh, door rek ak euh, révision liste électorale yi euh, tey lan mooy position wu PDS concernant li nga xam ne moom la ñu woowee les primo votants déjà quarante jours la ñu joxe ngir rek ñu am la ñu joxe comme délai ngir ñi amul woon pièce ñu mun a am seen pièce ñu mun a dem voter yi est-ce que jàpp ngeen ni délai boobu c'est raisonnable est-ce que loolu dina tax ba ñi amul woon carte tey ñu mun a inscrire. waaw bala may ñëw ci loolu dafa am lenn lu ma bëggoon leeral ci sénégalais yi leeral ko également seen auditeur Rewmi FM ak euh, citoyen yëpp yëpp ko mooy auditeurs yi nga xamante ni dañu ñëwoon fii doon saytu fichier électoral bi dañu si gis ay njombe euh, dañu gis ni lu tolloog un million cinq cent mille électeurs bind nañ leen ci fichier bi à partir d'un extrait d'acte de naissance ak euh, un certificat de résidence ba ñoom ñu defoon ay recommandation ñu ne loolu daal nekk loo xamante ni euh, luy favoriser clarté maanaam leeral ak doxalin wu leer ci mbirum mbindum élection yi ba ñoom seen recommandation yooyu moo doon certificat de résidence yi daal nañ ko dindi ci loxol maire yi jox ko police euh, pour que daal mbir mi mën a mën a am mën a am leer leer bu baax loolu nekkoon na ci benn ponk beneen ponk bi nga xamante ni auditeurs yooyu euh, tam génne nañ ko moo di ni vingt et un janvier deux mille vingt et un ba vingt et un janvier deux mille dix neuf mhm. ba mille vingt et un euh, bind nañ ci liste fichier électoral bi lu tolloog quatre cent mille quatre cent dix huit électeurs ñoo xamante ni c'est hors délai régulier pour ñu mën leen a bind may fàttali rek pour nga bindu ci liste électorale yi day fekk nga mu nekk nekk euh, ouverture euh, révision ordinaire maanaam du premier février ba le 31 juillet di nga am sañ-sañu bindu ci liste électorale yi wala mu nekk révision exceptionnelle ci liste électorale ci liste ci yi mais ñoom génn nañu lu toll ak quatre cent mille quatre cent ci bindu ci boobu ma la wax en dehors des des délais en dehors en cas des par le code électoral loolu nag nekk na contentieux boo xamante ni gouvernement bi euh, na ko leeral opposition bi parce que duñ ko bàyyi mu demee noonu bu loolu jeexee li ci mbirum inscription sur les listes exceptionnelles des listes électorales euh, loi bi moo ko autorisé le code électoral waaye gis nañ effectivement que ni nga waxee primo votant yi le président Macky def leen a dàq parce que moom jël décret fixé date bi ba pare fixé anam yi nga xamante ni noonu la ñu a bindoo ci liste électorale yi maanaam nee daal ku amul carte d'identité a démocratie maanaam démocratie dafa dellu ginnaaw ci loola ndax ñun de dañ doon def ne ku ñëw nga toll si atum bindu nga indi sa extrait d'acte de naissance nga indi sa certificat de résidence wane sa adresse ak fi nga dëkk dañ lay bind ci liste électorale yi bu app ba jeexee nga ñëw ñu jox sa carte d'identité mu ànd ak sa carte électeur te mosul indi ay problème loolu mos a kon moom bu ñëwee dindi ko ah lii naan rek xam naa ni wolof dafay wax ni bu kundogun rey sa maam boo séenee lu ñuul nga daal di daw li mu ci ragal seen bopp ci doxalinu nguuru Macky Sall moom nag pour moom ak ay àndandoom yi ak farandoom yi pour ñoom xale daal nañ leen baare parce que nu ñu gën a bindoo ñu gën a daaneel seen nguur ñu gën a mën a fexe leen ci élection yi mais loolu nag dañu xamul que xale ñu bind leen ak ñu bañ leen bind disposition yi nit ñi jël moo di Macky Sall moom benn parce que élection yi ñu jëm référendum la c'est une c'est une première enjambée baax a baax pour que xale yi mën a bindu bu baax véritablement ñu fexe ba jot leen seen carte parce que délai bi dafay gàtt xam ngeen carte d'identité pour nga am ko léegi lu mu gàtt gàtt gàtt foog nga am un mois waaye te ñoom un mois et demi leen joxe même pas donc bala nga fay jógee te ñoom ñoo yor daaf ku leen neex ku leen neex waa koy defaral ku leen neexul ñu teg seen tànk euh, ñoom xam ni ñu fonctionné rek kenn kenn mën leen jàng li ñu te ñun ñëpp xam nañu Antoine Félix mu ba mu def ay def ay affaire am donc du ñooñu ñooy yombalal xale yi am amu carte d'identité ba ñu war a mën a bindu ci ci liste électorale yi loolu nag opposition bépp am nañu conscience ci loolu bu ñooñu waxtaan ci loolu pour ñu mën a jël ay matukaay yu baax a baax a pour que xale yi mën a exercer seen droit parce que constitution bi moo wax ni ku am fukki at ak juróom-ñett am nga te amoo benn gàllankoor am nga sañ-sañu wote boo gannaaw boo bindoo donc bindu bi c'est un droit constitutionnel l'état du Sénégal le président de la République ko war a mën a joxe mu leer nañ ñun ñu am seen yeneen jumtukaay ñu mën a wote ji. Euh, yéen a ngi annoncé ab euh, coalition bu mag euh, ci ñu ngi donte ñu ngi dem quelques mois jëm ci ay élections tey mu mel ni rek kenn dégg kenn déggagul boobu les coalition boobu ngeen annoncé. waaw dañu toll ci baaral xam nga yéen jigéen ñu xam ngeen kuy togg foog ngay baaral nag pour mu ñor alors baaral xam ngeen ko yéen ñëpp xam ngeen loolu. Hmm? alors donc bu ñuy waxtaan suñu waxtaanu bopp kilifa yi di waxtaan di di élaborer ay stratégie maanaam ay xàll ay yoon déggee yoon wi ñuy war mën a àndee ban bunt la ñuy jaar wala ban palanteer la ñuy ubbi loolu waxtaanu biir la donc nekkagul lu ñuy génne ci waxtaan yooyu nag la ñu nekk waaye na seen xel daal incha allah yàggatul dinañu def benn coalition coalition ba ama am solo boo xamante ni way politique ñoo ngi dañ ciy am mouvement citoyen am ci euh, la société civile am ci donc les démocrates donte bokkuñu ci ay parti wala donte bokkuñu ay kuréel ay ñu ne nekk simple ay démocrates citoyen sénégalais ñooñu ñëpp la ñu bëgg collaborer doole ñooñu ñëpp lañ bëgg a fédéré ñu mën a ànd parce que li tax ànd bi am solo mooy amul tey benn parti politique bu amul conscience nii bu ñu àndulee ñun ñi dan a nekk benn dànk benn nekk benn say évidemment euh, du ñu peser ci kaw pouvoir bi donc on est obligé d'être ensemble pour ñu mën a am force pour ñu mën a am doole euh, parce que dañu wan daal doole daal mbooloo la mbooloo daal mooy doole mais bu ñu xajalikoo ñi jaar nii ñi jaar faa euh, du sotti donc day gën a yombalal gouvernement bi ci tooxi yi muy def ak cat pour man dafa génn naan wala waxoon naa leen ko ñiy posé wuñu donc tous les partis de l'opposition sont très conscients de cela ba tax ñoom ñëpp ñu ci waxtaan ci xel mu dal ak teeyum xel pour que vraiment le moment venu des nañ nag ay fan xam nga ni si ñoo ko war a ci mois d'octobre xam nga des donc des na fan donc am nañu temps boobu pour mën waxtaan bu baax a baax mën def ay réflexion yu majeure yu yu ay pour que ñu mën a enfin déggoo ci ni nga xamante da ngeen PDS dañ lay fàttali ci suñu programme politique suñ bi ñu tuddee programme fondamental euh, dañu am ci euh, suñu cinquième principe de que le le front national euh, donc loolu ñun suñu programme la ànd boolu ak ay kuréelu parti ànd boolu ak ay kuréelu syndicat ànd boolu ak ay kuréelu mouvement citoyen ak des démocrates pour def la gestion commune du pays kooku ñun def bokk ci suñu programme donc kooku suñu ADN la kon nous sommes effectivement favorables à des rassemblements ni ñu koy taxawalee donc en vérité euh, euh, parti démocratique sénégalais effectivement d'accord na pour di dem def ay coalition ak euh, comme ni ma ko waxee les forces citoyennes les partis politiques avec qui nous avons des accords et bien avec les démocrates de de de pour justement qu'ils soient des des citoyens sénégalais des gens engagés n'est-ce pas pour le développement de notre pays loolu ñun dañ ko bind dañ ko consacrer dans le cinquième principe n'est-ce pas de programme fondamental donc programme politique donc loolu am la ci ñun donc loolu lu ñu doxale la d'ailleurs de 2000 à maintenant le PDS à lui seul n'a jamais exercé le pouvoir nous avons toujours appuyé des forces indépendantes de notre parti donc loolu wax dëgg yàlla euh, kenn ku ne war nga mën a seede loolu mm-hmm. euh, est-ce que yéen a ngi amal ay concertation entre parti opposition euh, jëm ci local yi waaw waaw mooy li ma la wax léegi ñu ngi ci waxtaan bu baax a baax su mu nekk ñi kuréelu parti yi ñu ngi ci waxtaan lu mel ni front de résistance ak le mouvement pour la ak les autres démocratique ñoo ngi daje di waxtaan ci fànn yooyu bu baax a baax wax naa la ko léegi ñu ngi waxtaan bu baax di gisee di diisoo di am ay ay lël di waxtaan ndànk-ndànk parce que comme ni mu la ko waxee yoon wi yoon wi dafa gudd te mais doxe ndànk mooy tax nga egg fa boo yàkkamtee rek nga def erreur ñun na bëggut yàkkamti parce que nous sommes conscients rek bu ñu boolewulee alors duñu am résultat bi ñu bëgg euh, ñu génn tuuti ci cadre politique wax ci révélation yi nga xam ne docteur Niang bu suma assistance ak yeneen spécialiste wax nañ ko ci matériel yi nga xam dañ ko war a jagleel euh, centre de traitement épidémie yi nga xam ne dañ koo jël di ko jaay ci hôpitaux privés yi euh, ban jàngat nga am ci yooyu les révélations docteur Niang waaw euh, dama bëggoon d'abord féliciter le docteur Niang man xam naa ko bu baax su mu dëkkandoo la parce que man maa ngi dëkk Ouakam moom muy dëkk Ngor te xamante nañu di exprimer sama solidarité entière ci lii nga xamante ni ñoo ngi koy bund xatal euh, jàpp naa ne nguur gi à travers le ministère de la santé mën lu am ndam ci moom parce que le docteur Niang quand même euh, c' est de la de la la médecine euh, c' est scientifique donc xam na li muy wax te itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam nga nii la gestion de du système sanitaire de notre pays la gestion vraiment est calamiteuse il faut quand même le comprendre maintenant convoqué nañ ko bon dem na wuyu ji am na ay argument yu wér dina ko faire prévaloir foofu il appartient maintenant à ceux qui l'ont accusé des choses pour lesquelles joxe na ci xalaatam que ñoom ñu le contraire je pense que c'est comme ça li ci des yoon doxal doxal doxal yoon mais am naa yaakaar ni daal ak lu mën a xew rek il faut dire scientifique yi ñoom ñoo a mm. non ñooñu un peu administratif politico mais c'est la communauté scientifique, c'est les professeurs en médecine, c'est les, les c'est les docteurs, c'est le personnel de la santé, nest pas ñooñu ñoo yor affaire bi ñoo ñoo war a xool dëgg dëgg dëgg dëgg fu ñuy jaar ba régler ko mm-hmm. moo je pense que le président Macky Sall war na non seulement le comité scientifique ñooñu comme ni ma ko waxee mais war na mën a woo ku mel ni président Abdoulaye Wade mu jokk ko ay xel war na mën a woo mu jokk ko xel parce que ñooñu ñoo ko jiitu dans la gestion de l'État xam-xam am nañ expérience et puis amu ci gàcce amu ci rëy rëy lu war ci am parce que boo demee France tey lii la wax ni loolu moo fa ne le président français dafay consulter presque à outrance ça je peux dire ses anciens prédécesseurs sur toutes les activités qui concernent euh, n'est-ce pas doxalinu réew mi alors je pense que franchement loolu lu rafet lu jaglu dara amu ci mm-hmm. mais fii moom ndeysaan bon dañu xaw a a ragal loolu mais loolu amul dara parce que bokk leneen te feebre bi mar d'Italie yi ñëpp dañu war a te ñun ñëpp mànkoo nañu di ko xeex loolu moo tax ñun suñu parti joxe woon ci juróomi junni kit cinq mille ko au ministère de la santé ci première vague ba ñun ñoo jëkk dàkkal suñu parti président wax ni bàyyi leen mission yi bu leen dem ci réew mi bu leen dem bitim réew réunion yi sax dàkkal leen ko rien pour ñu a dagg les chaînes de transmission de la propagation n'est-ce pas du virus pour mu a am ci parti bi mais également bañ mooy suñu disposition yooyu la ñu nekk wax dëgg fa jàpp naa ne ñun ñëpp ñun ñëpp taxawaay boobu la ñu war a am waaye nag bala nga naan naan ne fa kii itam nga xam te moom yor lenge yi bu fekkee ne gis-gisam wala xalaatam jëmul foofu ah wax dëgg fa yàlla moom def leen rek lu dul lu dul di ko xelal wala di ko wax ni ah buñ defoon lii wala buñ defoon laa da xalaat nañ mu gën a baax en c'est impératif parce que mbir mi dafa garaaw lool fu fu gravité a mën a a dancing yi ci baar yi ci restaurant yi euh, ci dajaloo daal fu mu mën dakk war nañ ko mën a dakkal bu baax a baax a baax jël ay jumtukaay nag communiqué ministère l'intérieur bi doyul à lui seul doyul il faut mettre à condition les forces de défense et de sécurité autour de certaines questions également mm. il faut que le président Macky Sall prenne d'autres dispositions alors loolu daal jàpp nañ buñ ko defee ñun ñëpp war def seen loxo. dëgg ngi woon ci docteur tey ki sax la waxoon dem muy ji ban jàngat nga am ci plainte boobule. bon man jàpp naa ni euh, ministère de la santé bon am na sañ-sañ xëy na porter plainte bu fekkente ni am na nit koo xamante ni xalaat na ni waxal na leen loo xamante ni dëppul ak ñoom li am waaye ñoom nañ indi margay euh, firnde loolu nga xamante ni déposé nañ ko ci plainte bi ki nga xamante ni également mooy docteur ñaa wax naa ko sànq moom c'est un scientifique xam na bu baax a baax luy cëram xam na bu baax a baax luy liggéeyam xam na bu baax a baax également li mu wax waaye ñun ñëpp xam nañ ci réew mi la gestion du système sanitaire elle est défectueuse fii ngay gis ci ay kër ak ci ay makkaan ñu fay jaay ay garab te waruñu ko jaay ñëpp gis nañ ko te xam nañ ko waa ministère de la santé ñoo la ko gën a xam téeméeri jën yoon ay officines yoo xamante ñu ngi fii ci réew mi ci ndakaaru gii ak ci yeneen dëkk yi ak ci yeneen gox goxaan yi fu ñu jaay ay garab te warul mën a nekk te waxuñu ci dara kon bu ñu nee gis nañ ni yeneen matériel yu jógee ci ministère de la santé wala leneen ñu koy jaay feneen ñi ko wax ñàkkul ni am nañu ay firnde alors firnde yooyu nag yaakaar naa ni ñi ko wax dañu ko génnee li ci des problème de droit mu yoon la ñu bàyyi itam euh, yoon def liggéeyam man daal loolu laa ko jàppee ñu wax ci gestion mbas mi de manière générale ba mu fi duggee léegi euh, ñu tàmbale kook distribution yenn denrée yi ñu doon dimbali ni ñi ci première vague bi ak couvre-feu beeg ba ci ñetteelu vague bi euh, anam yi nga xam ne moom lañu ñuy traité maladie euh, ban lecture nga def ci gestion pandémie bi de manière générale. mais la gestion elle est défectueuse. elle est extrêmement défectueuse et calamiteuse. ndaxte xam nga ci njëlbeen ja président la république dafa woote woon les civile woote les chefs religieux et les chefs coutumiers ñoom ñëpp ñu wuyu ji ko d'un concert ñoom ñëpp ñu ànd jàppale ko mu mu ne assemblée nationale nañ ko woteel loi d'habilitation opposition député opposition ak député majorité à l'unanimité ñu woteel ko loi d'habilitation mu yor lenge yi donc muy muy gouverner par ci lañ ko woteel budget un un mille milliards mille milliards mais gis nañ ci mille milliards yooyu ay ceeba ki ay saabo ki ay diwlin ñu politiser ko ñu koy jox seen seen nit ñi à partir dul jeex nga gis euh, bi coow li ci amoon nga gis marché diwlin bi bi nga gis coow li rapport bi génnee gis nga tamit njombe yi nga xamante rapport bi génnee na mais malgré loolu ba tey gisoo kenn koo xamante ni ci ñi ñu tuumaal ci def lu dul noonu ñu yóbbu leen ci wax ne ne kee benn donc c'est pour dire que franchement te du loolu moo doon vaincre moo doon rey euh, mbas mi du loolu moo tax mbas mi la preuve muy neurochirurgie muy ñu génnaat te loolu ñu defoon mënatuñ ko parce que parce que suñu économie dafa daanu réew économie baa ngi daanu fi nekk nii njëg yëpp yokk nañu leen suukar seek yeneen yëpp tout tout yokk nañu impôts yi pour que gouvernement a am mën a am aslëf alors loolu moo tax vraiment bu ñuy naxante nañu wante dëgg te yàlla euh, mbas mi euh, ñu bëri buñ ko doon tuddee corona business lii moo taxoon ñu ko doon tuddee corona business am na si ñoo xam te dañ si doon wut ay koom am na ñoo xam seen affaire baax moom euh, wàcc na fa loxoom trop ko wàcc na fa loxoom lool. ñu ñëw ci laaj bu mujj bi tey ñu bëri di accuser yéen euh, homme politique yi ne yéen a waral ñetteelu vague bi ak seeni meeting ak i ndajaloo euh, ban xalaat nga ci am. ah ñun parti démocratique Sénégal de kàcceel ñu si ñun ndax ñun wax naa la sànq ne la disposition yi ñu jëloon ba ba pour dakkal la chaine de transmission pour dakkal propagation bi dakkal suñu ay réunion suñu ay tournée suñu lépp ba pare jël li ñu yàlla dénk ci moyen ñu jënd ay kit jox ministère la santé ñun yaakaar naa ñun kenn duñu mën a tuumal ci loolu ki nga xamante ne daal moom la ñu mën a wax mooy bi mbas mi wàccee ba mu nekk à la chute ba ñëpp sant suñu borom commencé gën a sant ñoo sant yàlla sax mais dégg buñ koy gën a sant ndax boobu yi fi wàccoon doon loolu mbir maa ngi jeex tàkk nag ki leen gis nag waa nguur gi président laafil Macky Sall ànd ak gàngooram mu ne day def tournée économique te y avait même pas vraiment de tournée économique c'était tournée purement politique mu tuddee ay tournée économique et cetera mu dem ci ay Ndar dem ci Podor dem ci Matam Kaffrine Kaolack et cetera et cetera bon alors yooyu bi mu amee nit ñi doon fees del ci mbooloo yooyu fii lañ leen doon jëlee Dakar gi lañ leen doon jël ci ay car bi fay nit trois mille quatre mille par bés ñu jël leen fii kaar yaa ngi fii am nañ sax numéro immatricule kaar yi pour te dire donc c'est pour dire loolu nekkul lu ñu lax ak lu ñu nëbb lu am la ñooñu nag xëy bi ñu dellusee ak jaxasoo boobu te amuñu masque amuñu benn disposition bu ñuy jëloon pour pour distanciation nit ak nit ñi jaxasoo boobu mel ni tulek mel ni loolu daal bi ñu bisee gis nañ daal ci la mbir mi jedduyaat boobu boobu indi li ñu tuddee troisième vague kon nag man jàpp nañu dajaloo boobu nga xamante ni pouvoir bi initié na ko ah néew ma ñoom am na am na aslëf ñoom loo xamante ni loolu moom moom kenn mënu ko kenn mënu ko di waaw loolu daal laa laa jàpp man personnellement. merci Assane Ba. waaw maa ngi lay gërëm bu baax di la sant.